ngir jàppale seen chaîne bi di seen xibaar info bu leen fàtte abonné ak like seen vidéo yi leen jagleel seen xibaar info l'information en temps réel. lu bees feeñ na ci mbirum Khady juuf di xale bu jigéen boobu dëkk fële ca Thiès te ñu xoj ko ba mu ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango l'observateur ki def ñaawteef boobu du kenn ku dul benn jeune marabu bu dëkk fële ca Thiès te siiw lool. papaam it nekk na benn kilifa diine bu ñu xam torop ci diwaan ba ngir fàttali néewu Xadi Juuf ñi ngi ko gisee fële ca village boobu ñuy woowe kër Sayib Ndooy te soriwul dara hôpital bi ñuy woowe dalal xel ndem ci yàlla si di Xadi Juuf mi ngi dëkkoon quartier bu ñuy woowee Medina Fall fële ca Thiès mu ngi jóge woon këram ci guddik samedi jëm dimanche ba 9 ca guddi jotee ca lañu ko gëj bët ba léegi ci kàddug waa l'observateur jeune marabu bi dafa yónni woon kenn ci ay taalibeem ngir mu woowi ji Xadi Juuf ngir mu ñëw wuyu si ko ci la ko Xadi Juuf tontoo ne moom dafay seetaan film bii di Pod et bi film boobu la ci la taalibe bi dellu si waat kër ñoom Xadi Juuf jël si ko ngir mu dem wuyu ji jeune marabu bi de ca la waa këram gëj am xibaar ci moom ba ni muy ñàkkee bakkanam bu ñu sukkandikoo ci mbokki xaddi Juuf yi xale bu jigéen bi waxoon na ay waajuram ne da doon génn ak jeune marabu bi ba sax daka ëmbal gannaaw bam ko violé Seynabou Diop pour Sen Xibaar Info